ñuy waajal màggal Darou Salam édition 2018 mbooloo mu takku góor ak jigéen mag ndaw ñu ñëw ci bërëbu sell bi ngir seetal ko laatay màggal gi léegi nag ngir mën a dalal ñi nga xam ne ñoom ñoo di gan ñi liggéey bu ni mel nag def nañ ko ak Pastef ndax laatay ngoon rek mboolem liggéey bi àgg na. am nañ ci nag lu kawe suñu njort ndax mbale mi ñun bi ñu woote 3 heures lañ doon xalaat naan balaa 3 heures na ñëpp pare waaye midi man gis naa ne midi bi ma waree gisatuma benn mbale ci dëkk gisatuma benn tonn ci dëkk loolu nag ak yokkute bu wér a wér a la kon xam nañ ne mbale mi egg na foo xam ne kawe na suñu yor. liggéey bii di seetal màggalu Daaru Salaam nga xam ne at mu jot laatay màggal gi dañ koy amal nekk na liggéey boo xam ne soxna yi am nañ ci passif bu mag a mag. tey ñaanal nag mbooloo mu jigéen mi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi maxtaar yàlla na leen fi sa borom yàgga ba lépp lu ñu yéene ñu man ko ndax gis nañ seen pas-pas dañuy jënd ay bagages di jënd ay bale di dajale di jënd ay palaat côté bu nekk dañ ciy jàppe mbootaay yi ci dëkk bi yëpp nag laa wax desaluma benn ñoom ñëpp dañoo mànkoo booloo ànd di jàpp. waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall kenn jiitu leen ci liggéeyu set setal Daaru Salaam ki nga xam ne moom moo ko jiite woon moom moo di Serigne Moustapha Mbar moom nag liggéey bu ni mel mu ci ànd ak mbégte. kon nag ñun murid yi bu ñu neexee am suñu jëmmi bopp luñ dégg ñu di ko def Daaru Salaam ñu fexe ba def loola. ku defal borom Daaru Salaam li mu bëgg rek li nga bëgg moom suñu borom defal la ko. kon nag yéen yéen a defal borom daaru salaam la mu bëggoon li ngeen bëgg nag sunu borom moo leen koy defal bu wér a wér nag nee na sëriñ baa ngi sant mbooloo mi fi daje. màggalu daaru salaam ñu ngi ko war a amal jeudi 2 août 2018 fii ci daaru mu nekk bés bi nga xam ne ci la sëriñ Touba jóge woon ci géej gi ñëw fii daaru salaam fekk fa sëriñ maam Cheikh Anta Mbacke.